fii ci mi FM lay am mercredi bu jot 15h jàpp 16h euh, euh, tey ñu dalal El Hadji Mansour Sène moo di responsable politique ca commune bu euh, Tataguine ku ci bëgg a ak ñun ci waxtaan wi 88 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 ñetti numéro yooyu da ngay yokk plus 1 boo nekkee bitim réew 33 841 21 40 balaa ñu dalal suñu gan gi. bi Mor Fall ma nuyu la bàyyi la nga nuyoonte ak bokk déglukat yi. voilà donc euh, salaamaaleykum maa ngi euh, nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi déglu jamono ji mi FM di leen jëfal leen jox seen uh, wàccuwaay uh, di profité aussi occasion bi rek di jàllee uh, képp koo xamante ni yaa ngi nekk Sénégal commune communauté musulmane bi yëpp ak nag ni mooy Serigne Cheikh Diouf Fall nekk septième xalifa bu Maam Cheikh Ibra nekk fi depuis quinze ans si si donc di ko jàllee képp koo xamante ni yaa ngi koo xamante ni murid rawatina Baye Fall yi mhm. di defal suñu gan nga xamante ni ñu waxtaan tey ci ay fan yu bëree bari bari bari. Mhm. laata ñu koy jox kàddu gi moo faal lu gën a fës ci bés bi. waaw li gën a fës ci bés yi moom mooy euh, coowal li nga xamante ne mooy euh, denrées alimentaires yi nga xamante ni dafa yokk jamono ji euh, ba démb am na conseil national boo xamante ni nañ ko amal ngir waxtaanee li nga xamante ne moom mooy prix yooyu ci lu jëm ci ceeb beeg diwlin beeg suukar si ak yeneen wàll lu ci mel ne ciment ñu mel ne xam nañoo trouvé tuuti sax benn consensus ci yenn taxes yi nga xamante ne yenn prix ne coono na ba léegi euh, des na parce que am na prix yoo xamante ni ba léegi ñu ngi wax ne yooyu aussi dañ ko ci euh, war a boole donc mu lay waxtaan boo xamante ni euh, jeexagul parce que am na ñenn ñoo xamante ne jàpp ne ñii di état bi deful dara ci li nga xamante moom mooy yokk prix yi mais commerçant yi si boppam ñoom ñoo ko ñoom ñooy yokk prix yi jël mbir bu ñu waxee ñu ne état bi tax yi te ñoom ñooy def yu ni mel parce que am na koo xamante ni sax dem na ba wax ne nan la ñu mën a gisee yenn prix yi nga xamante ni ñu ngi koy jaay si grande surface yi mu yomb fa tor ñu ko jaay jaayee prix normal. Mhm. commerçant yi bëgguñ ko yokk. te dañoo am seen i prix fixe. te dañoo am seen prix fixe daal ne c'est déjà homologué ki waru koo jaay ëpp. donc nag état bi moom war a jël ay mesures ba ñu andi ay ay euh, lim jël ñenn ñi leen leen neexal parce que commerçant yi yu bëri bëri ñooy def yenn tay ko. Mhm. jël prix di ko yokk. Mhm. parce que bu ñu demee ba yenn grande surface yi jël. prix bi ko jaayee normal. parfois ñoom ñooy waral pénurie. waaw disons diwlin diwlin ñoom ñu ko ñu ngi koy jaayee normal bi mooy mooy mooy 700 euh, bi wala wala ba 1000 euh, francs bi mais ñoom dañuy jël yokk ci 200. Mhm. yokk ci 250 bouillon bi nga xamante ne moo gën a ñàkk fayda léegi dañ ciy yokk prix yokk ci fukki dërëm jëmal kaw. Mhm. Euh, xorom ñu yokk lépp ñu yokk dem sax ba suba sax yaa ngi dégg ci revue de presse bi nga xamante ne ci Abdou Khadre Nguer mu ne dem na sax li nga xamante ne mooy naanaa sax dañ koo dem ba ba yokk donc bu ñu demee ba indi yu détails yi nga xamante ne Sénégalais dañ koy soxla ñu koy yokk yokk li nga xam mooy ciment ku bëgg tabax doo tabax parce que yokk nañ ciment yokk nañu fer yokk lépp. Sénégal amuñu problème état amul problème ak li nga xamante ne moom mooy kii parce que bu wàññee li nga xamante ni moom mooy euh, taxi yi. Mhm. moom moo ci gaañu. parce que président Sall waxoon na ko ba muy laaj réew mi mu ne état bu ko neexee prix normal donc euh, mais. li li koy firndeel mooy il faut mu jël yenn euh, détails yi dindi ko lu ci mel ne jënd avion jëndi ay ay oto ay ministres yooyu. Mm-hmm. donc saa bi ñoom xam nañ yan moyens lañ mën def ba ba dund bi yomb. Mm-hmm. mais aussi foog ñu réglementé li nga xamante ne moom mooy secteur euh, commerce bu Sénégal. ministre de euh, commerce wax si ministre bi yor wàllu. génn <coughs> yi génn yi dugg ñu xool Sénégal exiger prix comme ni mu amee ci grande surface mm-hmm. ñoom ñi nga xamante ni moom ñoom ñoo fi nekk ñu def ko sinon Sénégal dañuy dem di jënd ji si grande surface yi ñoom commerçant yi continuer jugaat di waxaat naan Séné euh, état bi day jàppale grande surface alors que ñoom ñu ñoo pousser les Sénégalais à aller euh, vers euh, ces ces grandes surfaces. loolu merci waaw merci Modou Fall El Hadj ñu ngi lay nuyu di la dalal suñu plateau sans filtre ñu bàyyi la nga nuyoonteeg mbokku auditeurs Rewmi FM. jërëjëf. Sylvie maa ngi leen di nuyu Fall maa ngi leen di nuyu bu baax su nekk turam ak santam mhm. euh, di commencer d'abord par euh, jaale réew mi Sénégal mhm. euh, ci nga xam ne moo am muy Serigne Dioum Fall mhm. ñu ngi koy jàll suñu mbokk yëpp suñu mbokk murit yi Baye yi ñu ngi koy jàll di jaale tamit également waa Sénégal suñu leader boobu nga xamante ni moo fi jógee fan yi di Alioune Badara Cissé di ko ñaanal yàlla Euh, yàlla xare ko àjjana. Mhm. Euh, d'accord El Hadj Mansour Sène euh, sa appréciation rek ci denrée yi njëg li cher na sénégalais tey sonn na Macky Sall yokk na lépp <laughs> te yokkul salaire yi. <laughs> loolu ñu du Macky moo yokk lépp. kan moo ko yokk. <laughs> commerçant yi ñoom ñooy def lu la neex rek. ñu koy vraiment euh, ñaawlu parce que mm-hmm. wax dëgg yàlla euh, prix yi nga xamante bi dañ ko homologué euh, ngeen dem jënd ko en tant que importateur jaay ko grossiste si grossiste yi jaay ko détaillant yi ci diggante bi mm-hmm. normalement li fi xew yëpp warutoon mën a permettre à que ñu jël produit yëpp boole leen mm-hmm. yokkandoo leen naam am na ci produit yoo xam ne mën nañu comprendre Euh, ne mun na yokk. Mhm. parce que c'est lié à la pandémie. Mhm. waaye jékki-jékki rek yokkandoo produit yëpp euh, euh, man pour man loolu vraiment lu lu xaw a doy waar la. Mhm. ma jàpp rek ne aussi foofu aussi suggestion laa am rek. di ko ci joxe mooy état bi. moo war a jël ay responsabilités am. que am réew dañ koy réglementer. te réglementation boobu am na fi fii loi loi bu ne am na fi mais application bi moom mooy problème et am aussi ay corps yoo xamante bi c'est des corps de contrôle yoo xam ne mhm. dañu xaw a absent boo demee ministère du commerce contrôle économique et social mhm. dafi nekkoon di def rôle am di ko mhm. jouer pleinement euh, mais loolu dañu seetlu ne léegi pratiquement amatul dootoo dox sax ba dajeek ñoom fenn mm. te ñoom dañ daan ñëw inopinément ñëw dugg ci bitik yi commencé commencé contrôler wala ñu jóg sax jóg di yónnee mm. ñëw ba ci benn bitik ñu taxaw fa yónni benn xale xale bi dem jëndal leen mm. su waa ji yokkee prix yi parce que bokkul ak euh, prix yi nga xam ne moom la ñu moom la ñu pra moom la ñu pratiqué moom la ñu réglementé. Mm-hmm. ngeen ñëw dal ci kawam amande ñu ko war a teg ñu teg ko. loolu moo amatul loolu loolu moo amatul. voilà am na solo merci élagement Hadj seen Sène yow yaay responsable politique <coughs> bokk ci commune bu Tataguine ma def rek euh, une brève présentation de la commune de Tataguine fii ci Sénégal la bokk dans l'ouest euh, dans l'ouest du pays dernier recensement bañ fa def. waaw ouest ca ouest ca sud sud du Sénégal ca sud am na ouest voilà foofu lay waxee <laughs> euh, dernier recensement bu ñu la def amoon na lu toll ci vingt deux mille cinq cent soixante une personnes pour deux mille cinq cent cinquante deux ménages euh, population ba ñu ne majorité ba ay séeréer lañ sama mbokk séeréer ñoo fa ëpp mm. waaw taata Tataguine nag tur bi ñu ne mi ngi jugee ci benn oiseau boo xam ne tata lañ koy woowee dans la langue séeréer mm-hmm. voilà Euh, yooyu les oiseaux nag ñoo dëkkoon foofu ñu ne laata nit ñi di ñëw di fa dëkk mhm. voilà gin nag nee na ça signifie pondre euh, maanaam oiseaux yi nga xam ne dañuy nen maanaam taata gin dafa bëri woon ay oiseaux yoo xam ne fa lañ daan dajaloo di nen euh, loolu moo indi taata gin bi laata nit yi di fa ñëw dëkk mhm. ñu ne taata gin nekk na chef lieu d' arrondissement bu bu taata gin de bokk ci département bu Fatick mhm. Euh, ñu nemmeeku fa ay personnalité ndax ngox boo gis am na ay personnalité yu fa jógee ku ci mel ni El Hadji Ndiaga Mbaye nekkoon auteur compositeur euh, ak philosophe foofu la juddu ci atum 1948 ak El Hadji professeur El Hadji Issa Sall euh, bokk PUR parti de l'unité et du rassemblement nekkoon fa plutôt nekkoon député ak candidat élection présidentielle atum 2019 foofu la juddu boo amee loo ci yokku waaw man de je pense que maa ngi nuyu d' euh, mhm. mbokk yëpp yi ñuy déglu. Mhm. Euh, di nuyu particulièrement waa Tataguine bien que sori nañu. Mhm. Euh, ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen bëggee bu baax. di wax rek ne effectivement présentation bi nga def. à peu noonu la. sauf que population bi moom xam naa. waaw day gën di moom moom yaa yaatu na léegi. xam naa léegi fi mu nekk nii on doit aux environs de quarante mille. ah bon kon daa doublé. <clears throat> waaw on est de quarante trente huit mille quarante d' accord voilà. Ah, d' accord mhm. euh, euh, lu ñuy waxtaanee lu ñu soxal moo di ndaw ñi euh, nga xam ne bëgg nañu présenté wu ci élection locale yi di ñëw mais tey caution bi dafa xaw a diis yow ci ñooñu nga bokk. di nga présenté wu ndax doo présenté wu ak lu tax. waaw euh, d'abord ma wax rek ne du man rek maay responsable politique foofu APR Tataguine. Mhm. Euh, au niveau de l'APR ñu ñett lañu foofu. Mhm. Euh, muy monsieur le maire Déthié Diouf ak. Euh, Déthié waaw ku ñu wax Ibou Ndiaye. Mhm. moom aussi. Euh, Euh, ci responsable politique yi la bokk moom mu ngi d'ailleurs sax c'est un membre du haut conseil des collectivités territoriales mm-hmm. ak man mii di élagement sur scène mm-hmm. ñun ñetti ñooñu ñoo fa nekk euh, responsable politique loolu mm-hmm. loolu laa bëggoon préciser euh, di wax rek rapport ak caution bi nga xam ne moom la ñu proposé effectivement dafa xaw a élevé ndax lu tax mu xaw a élevé mooy Euh, boo xoolee tey au niveau des collectivités territoriales à la base ñi nga xamante bi nañoo nekk sur le terrain di liggéey mhm. euh, grande majorité bi euh, amuñu possibilité pour mun a verser caution bu mel noonu bu tol bu tol noonu donc dafay daal di poser ay interrogations yu bëri mhm. loolu moo tax bu ngeen ma invité ma sawaroon ñëw mhm. pour ñu échanger ci waaw man it ma joxe suma xalaat. Mm. waaye jàpp nañ ne euh, dafay daal di mettre sur la touche des gens qui sont très importantes au niveau des collectivités territoriales dans les différentes zones respectives yi ñu dëkk. Mm. ndax euh, boo xoolee bi ñu commencé en euh, le président Macky Sall mu ngi dem au deuxième tour avec vingt six pour cent des suffrages la demee. Mhm. vingt pour cent yooyu waa APR mhm. ak euh, waa APR alors donc ci après ci deuxième tour bi ci la lii ñëw yëpp après ñëw greffé wu mu soog a génn deuxième touram nga remporté élection yi en donc ñun dañ jàpp ne. ñun ñoo ñu nga xamante bi ne ñoo ko ñoo ko jàppale woon ànd ak moom. Mm-hmm. dem au charbon de 2008 à 2012. Mm-hmm. ba mu génn premier tour ñooñu euh, am na loo xamante bi ne euh, war na euh, war nañ leen a bàyyi xel. war nañ leen a bàyyi xel bu baax a baax a baax te ni dañuy seetlu ne depuis ba événement 2012 bi amee. Mm-hmm. ba mu falu. Euh, lu moom le président Macky Sall alors ci la ñu remarqué ne euh, presque ñun ñu nga xam ne ñoo fa ñoo fa mhm. nekkoon on est pour compte mhm. donc loolu euh, ñu koy remarqué di avancer di avancer ba toll tey ci fu ñu fixer la cause la la caution à quinze millions kon yéen gisoo leen seen bopp ci gestion président Macky Sall yéen ndaw ñi foofu yéen ndaw ñi nekk ci biir APR non je ne dirais pas que ñu suñu suñu bopp parce que euh, il faut quand même aussi reconnaître que euh, bi nga xam ne moom le président de la République met en place mm politique la boo xamante bi ne euh, li mu ratissé dafa large euh, après on peut dire que voilà ñenn ñi mën nañu wax ne gisuñu seen bopp mm-hmm. mais je peux considérer que yow nag Euh, du du ma ne. du ma ci ñi gis seen bopp wala ñi gisul seen bopp nga bokk man loolu laa bëgg a xam. waaw c'est-à-dire que euh, man gisaguma ci sama bopp man personnellement man Mansour Sène gisaguma ci sama bopp sama bopp. et hmm. je sais que euh, au niveau de Tataguine euh, à part élection yi nga xam ne ñoo fa am. Hmm. référendum bi législative. Hmm. présidentielle. à part trois élections yooyu. Euh, terrain bi mosuñ ci gis benn cadre politique benn responsable politique bu jóg ñëw dugg dans la commune de Tataguine ñëw di ñu fa jàppale. rares sont ceux qui l'ont fait. Mmh. nous avons été laissés nous à propre compte. Mm-hmm. ñu yor partie bi di ko développer def ci suñu doole def ci suñu alal. Mm-hmm. ba toll fi ñu toll bi ba toll fi ñu toll te mhm. ba jusqu'à aujourd'hui à part quelques rares yi nga xamante bi ne euh, dem nañu euh, ci ay ndimbal yoo xam ne jóge na ci ay responsable mhm. amul euh, kenn koo xamante bi ne fekk nañu foofu donc ñu jàpp ne. Mhm. su fekkee dañu def liggéey bu toll noonu. kon di ko def de 2008 à 2012 de 2012. ñu muyee les maillots le le maillot. dem référendum gagné. dem législatif gagné suñu zone yi. dem euh, présidentielle gagné. Mhm. ñu toj ci suñu parabiliser oto suñu oto suñu oto yàqu ci ak leneen ak leneen ak leneen ba pare euh, challenge bi mooy ñu amoon un candidat a la présidentielle boo xam ne yor na ay moyens nekk biir Tataguine. Mhm. malgré tout ça ñun ñu gagné. Mhm. mais gagné boobu euh, man dama jàpp ne aussi quelque part dama xamul ndax. de formation yi war a am euh, pour que à la base liggéey bi ñu fay def. Mhm. liggéey boobu mun a yéeg ci kaw. Mhm. dama xamul ndax loolu mi ngi am wala amul parce que normalement bu loolu amoon kon euh, peut-être dinañu am yeneen interlocuteurs yu nekk yu nekkul wala boog dinañu am. Euh, yeneen yeneen ay contacts yoo xam xamante ne danañu pe danañu gën a renforcer. Mhm. ci liggéey boobu nga xam moom moom la ñu def. mais depuis boobu ba tey jii Euh, à part quelques responsables yi nga xam ne jaar nañu fa ñu jàppalante ak ñoom ñu jàppale ñu ci seen doole te benn responsable man pour man man mi Mansour di wax. Mhm. benn responsable la en 2017 laa jóg dem Fatick. parce que quand j'ai fait le tour de Tataguine man 2012 laa jógee ma tra tracé le sama parcours politique 98 fii fan ok laa fi nekk di def politique ñu ànd ak Ablaye Maître Ablaye Wade. Mm-hmm. Maître Ablaye Wade commune bi mu njëkk a gagné en politique ci euh, victoire électorale am. Mm-hmm. fii la commune Fann Point E Gueule Tapée. Mm-hmm. ñun ñoo ko ko ñoo ko jàppale. ànd ak moom ba mu gagné commune boobu. commune d'arrondissement boobu. alors après ñu accompagner Maître Ablaye Wade euh, ba 2000 ba 99. 99 pour des raisons X ma bàyyi PDS dem AFP rejoindre l'AFP parce que euh, voilà ndigal kilifa ak yeneen ni xam nga considération yi am fi en Afrique donc mhm. bi ñu demee en 99 à Tataguine dem defi foofu politique on a gagné la présidentielle Tataguine a basculé au niveau de dans dans l'AFP mmh. et ça c'est moi qui l'ai fait en 99 mhm. mhm. est resté dix ans dans l'opposition dix ans après c'est en 2012 que le Tataguine dellusiwaat parti au pouvoir donc. Mm -hmm. euh, 2012 bi ñu ñëwee bi Macky Sall gagné euh, ci la ñu ñëw aussi euh, dugal suñu loxo euh, ci biir liggéey bi nga xamante bi ne moom la initié woon muy yóbbu Sénégal à l'émergence te loolu dañuñ ci ci lañ nekk di ci wax guddi ak bëccëg suba angoon mhm. mais c'est que simplement. dafa am loo xamante bi ne bu fekkee dangay ngay ànd ak ay nit aussi di liggéey ak ñoom ñoom ñu nekk à la base di la liggéeyal nekk mhm. taxaw ci liggéey bi di ko def mhm. jaadu na mhm. ces moo am une certaine reconnaissance boo xam ne moom lañ leen war a euh, jagleel moom lañ leen war a jox mmh. waaw reconnaissance boobu sax la foofu loolu foo dem fekk fa euh, mais tey caution bi quinze <coughs> millions la ko premier ministre fixé euh, tey ministre de l'intérieur sax du moins Antoine Félix Diome yéen ngeen bokk parti euh, pouvoir bi ñoom proposé woon nañu vingt millions opposition yi proposé dix millions léegi kon il a voulu trancher def ko ci digg bi quinze millions. Mhm. Euh, est-ce que foogoonu tey moom moo leen xaw a yàq la parce que tey bu nekkoon dix millions peut-être dina am jeune yu bëri dinañ mën a euh, accéder à ça à cette somme pour mën a présenter wu. waaw est-ce que du benn instant yéen surtout yéen ñi nekk APR yéen xaw a yàqal seen bopp. Euh, foofu ma moi je pense que euh, mbir mi aussi waruñ ci xool suñu bopp rek rek rek rek parce que loolu aussi am réew dafa nekk lu complexe. non parce que bu ma waxee loolu. Hmm. pouvoir bi bu dee bu bëggee fixer vingt xam na ne hmm. bu fixer vingt millions dina am ay candidats yoo xam ne du ñu àttan loolu. surtout du côté de l'opposition parce que xam nañ fi Sénégal boo nekkee ñi nekk pouvoir bi kese ñooy am xaalis. waaw c'est que foofu li li problème bi mooy euh, caution bi état bi di fixé. Euh, wala bokk lu caution bi muy fixé parti politique yi. Mhm. ñoom ñooy euh, cautionné pour seeni candidats. Mhm. donc képp koo xam ne te APR désigné na pour nga nekk plénipotentiaire ci biir une commune ou un département. Euh, yow la ñuy versel ko parti bi moo leen moo lay versel. ah mais y a des candidats côté yoo xam ne dinañ bëgg a présenter léegi nag foofu la problème bi nekk maintenant nag c' est là où peut-être je je que. am réew mooy peut-être aussi mun na moo moom mooy doxee noonu parce que à côté de des décisions qui sont prises dina am ñu mu arrangé dina am ñoo xam ne arrangé wu mhm. leen euh, moi dans mon cas ça ne ça ne ça ne ça ne m'arrange pas parce mhm. que euh, li nga xamante bi ne moo ne ci kanam euh, taxawaay bi Tataguine taxa taxaw fi mu toll tey mhm. liggéey bi nga xamante bi ne def nañu ko ak jigéen ñi nga Tataguine yi ba Tataguine toll fi mu toll tey on aurait aimé que liggéey boobu ñu mun ko continuer tant ci en étant euh, dans le parti mais aussi su fekkente ne conditions yooyu mënul permettre pour ñu mën koo mën ko mën ko continuer mhm. mais c'est am na na noo xamante bi ne su ko naree su ko naree demee euh, ça ça va pousser les gens à réfléchir mhm. kon yow mën naa jàpp ni caution bi moo tax euh, tegg nga sa tànk ndax bëggoon nga présenté wu euh, président ba léegi dama bëgg ba ba fi ma taxaw di wax ak yow nii bëgg nga présenté am naa yaakaar ci ne Euh, demain mun nañu parti bi mun na ma désigner ma nekk euh, plénipotentiaire bi Tataguine. d'accord am naa ci yaakaar. Mor Fall. waaw voilà donc euh, dégg naa li mu wax yëpp ci li nga xamante ni moom moo jëm ci ay ambition am nga xamante ni moom moo nekk ci wàllu caution yeeg yu ni mel mais donc sama problème moom mooy yéen ñi nga xamante ni yéen nekk biir après Macky am loo xamante ni moom la exiger ne dem leen ci terrain bi liggéey. buñ demee ba si cappaandaw ga lépp loo xamante ne war nañ ko mën def ci li nga xamante ne moom mooy wàllu choix wu candidat yi moom dina ci wax mais may gis ne dafa am benn genre xëccoo boo xamante ne moo am ci ku ci nekk taxaw ne. man maay jiite man maay jiite wala man euh, je un candidat je suis un militant de première ni ko waxee naan euh, candidat euh, militant première heure la mhm. ñu ñoo ànd ak Macky Sall depuis Dekkal Ngor. Mhm. donc dafa war a am reconnaissance. Mhm. te man li ma yaakaar mooy ki nga xamante ne dafa ne dafa jug ngir jàppale. une personne. Mhm. ba Macky Sall ñëwee ci atum 2009 di di dem ci région yi dem ci seet askan wi pour pour dagaan euh, baatu askan wi yéen ngeen jugee da ngeen koy jàppale. Mhm. donc ba ngeen koy jàppale je pense que boobu ba ngeen koy jàppale c' loo xamante ni. amour bi ngeen am ci euh, defar réew mi moo tax ngeen koy def mais nekkoon na daan bu leen di xaar ci suuf. Mhm. Euh, ne bu bu am benn conception ci loolu ci politique. Mhm. alors que politique dafa nekk loo xamante ni dañ naan euh, da ngay développé da ngay da ngay xeexal sa askan. même fekkee sax ki nga xamante ni moom ngay jàppale. <coughs> que ça soit Macky Sall que ça soit keneen ak keneen. see mhm. xaar leen wala wala à chaque fois ngay dégg ñu ay affaire rouge affaire lii affaire la mm-hmm. donc seen problème moom mooy ñàkk jubóo bi nga xamante ni moom moo am danga mm-hmm. joxe exemple bi nga xamante ni moom moo am fa nga xamante ni mooy yëmbal sud mm-hmm. amoon na ci ci li nga xamante ni moom mooy euh, wàllu élection locale parce que dañ leen waxoon na leen ànd leen ci ginnaaw diw ñu dem ba ci biir nangu ñoo ànd looloo waral booba léegi yenn euh, localité yu bëri Macky Sall ko gagné parce que ñàkk jubóo bi nga xamante ne moo am seen biir duñ duñ nangu ku nekk ne man diw du ma jiite parce que man. Mhm. Euh, je pèse le poids. donc donc fi mu nekk nii ma ma jeexal foofu. Mhm. Macky Sall li nga xamante ne moom moom moo am ci wàllu euh, fixation caution bu 15 millions que ça soit 20 millions. Mhm. donc moom xam na ne. même bu ko defoon 20 millions dina am ci opposition yi ñoo xamante ni ils les moyens pour mën a pour mën a déposer. mais moom problème bi ñu bëgg a régler moom mooy segg parce que am na ñenn ñoo xamante ni. am amuñu njariñ ñoom li tax ñu bëgg a nekk mairie c' est pour lekk xaalis. kese moo tax ñu jóg. Mm-hmm. Mm-hmm. xaw ma ndax euh, ñoom ñi nekk ci APR ñi ñuy wooyalee euh, ñooñu di xaw ma mm-hmm. na ci ñoo xamante ne fàtte woon nañu ne. instant bi pour ñu mën a jëngal seen bopp pour Macky Sall gis leen ne ah man mii de bokkoon naa ci ki li nga xamante ne moom mooy de militants de première heure. kooku fi mu nekk nii yow xam nga ne yow. tu fais tu pèses pas le poids. Mm-hmm. mais il faut ngay taf yëngal yëngal ne man candidat la nga xaw a yëngal tuuti Macky Sall woo la suuf. Mm-hmm. jox la benn poste benn poste bu ndaw soit nga nekk conseil wala nga nekk benn. Mm-hmm. genre chargé de mission. nga nga leen toog. doo doo doo waxati. parce que loolu ngay wut parce que xam nga ne tu pèses pas le poids. ci kanamu ñenn ñi. donc yow mii ban approche nga am ci loolu. ndax bu président Macky Sall ñëwee ne il faut par force da ngay topp ci ginnaaw euh, euh, euh, diw te yow. askan wi yi nga xam ne ñoo ne caata gi yow wóolu nañ la. yow la ndax boobu da ñëw. Mhm. nekk liste parallèle. Mhm. wala boog da nangu topp ci ginnaaw bi nga xamante ni moom la Macky Sall. moom la Macky tànn tànn. Mhm. bu boobaa askan wi sanctionné parce que nee nañ tànn ñu diw. diw lañ tànn donc ñu duñ votal kooku. bu boobaa nag affaire yi ñàkk foofu yëpp. je pense que ñoom sax balaa ngay tontu yéen yéen foofu au niveau de Tataguine. affaire foog naa c'est divisé en deux léegi selon information yu ma jot. Euh, Déthié Déthié maire bi daa ak euh, APR nouvelle version boo xam ne Ibou Ndiaye moo koy diriger yow je pense que ci kook nga bokk. non non non man bokkuma foofu yëpp. Mhm. Euh, ma man j'ai été candidat à la dernière élection présidentielle nee naa la ñun ñetti la ñu. Mhm. nous on est trois responsables de mhm. l'APR à Tataguine. Euh, j'ai fait un travail remarquable à Tataguine. Mm et je pense que euh, peut-être temps bi moo gàtt. pour que ngeen def enquête bi ngeen waroon def. mais j'ai formé 3000 femmes à Tataguine. j'ai mis en place soixante-dix groupement yoo xam ne de femmes yoo xam ne maa ngi leen di encadrer aujourd'hui kees bu ci nekk kees boo ci dem le plus petit montant c'est huit cent mille am na ci kees yoo xam ne ñu ngi ci trois millions tey. yow yaa ko def wala euh, je l'ai enfin j'avais en am naa benn responsable boo xam ne Fatick la nekk muy euh, Papis Sori Kaba euh, bi ma commencé suma politique. Euh, dugg dans la commune ba def euh, créer cette organisation sociale euh, ce à quoi je faisais face je savais que j'avais pas j'avais plus les moyens pour mun ko entretenir donc si laa dem Fatick uti un responsable bu ñu jàppale parce que ñun la base on nous va du ñu gis benn responsable bu taxawal donc Papis Sori Kaba est venu quand je quand suis allé vers lui il m'a dit je viens te donner un coup de main à Tataguine aussitôt dit aussitôt fait il m'a accompagné mission j'ai fait une tournée de 7 jours, 24 heures sur 24, non-stop, de 9h à 22h, pendant 7 jours, pour que moom mu gis liggéey bi ñu fa def. Mhm. noonu la ñu def financé ay mu ñëw financé ma jàppale ma financé ma ay formation pour jigéen ñi. tournée yooyu ñu doon def c'est au niveau de des différentes dans les 17 villages de Tataguine. Mm ci la ci groupe groupement yi nga xam ne ñoom lañ doon formé. Mhm. groupement yooyu lañ doon visité pour ñoom ñu ñu xam de visu ban liggéey la def daata Tataguine ñu nga fa di liggéey ba tey jii léegi pour répondre à la question. Mhm. Euh, man à la base je suis un agent de développement. Euh, je fais de l'humanitaire mm, nekk je suis un immigré euh, euh, boo xam ne def naa presque treize ans en Europe j'ai construit dans la commune de Tataguine vingt-trois puits ci suma dooley bopp ci jamono boo xam ne ndox mi ni mu wëree tey biir gi ndox mi wëreewu koo wëreewu ko ci jamono yi métti donc à la base euh, man agent de développement laa. Mm-hmm. je ne fais pas la politique pour falu parce que dama bëgg alal wala dama bëgg xaalis wala dama bëgg oto mais dama am yëg-yëg ci ba pare yor am ay capacité pour développer la commune de Tataguine mm-hmm. loolu mooy suma d'abord euh, sama yëg-yëg mm-hmm. mais du euh, dem pour uti xaalis wala pour pour pour euh, ñu ñu ñu fal la fal bi si c'est important parce que fal bi mooy permettre nga mën a yor lee reen mhm. parce que mën nañ la fal te doo am yëg-yëgu fal gi ñu la fal mhm. lan mooy intérêt lan mooy euh, impact bi mun a am ci biir commune bi nga dëkk bi nga dëkk mën nañ la fal nga nekk fa pendant dix ans dara doo ko fa andi dara doo ko fa def lu dul budget yi nga xam ne moom lañ lay voté fonds de concours yi ñu lay jox wala fonds dotation yi nga jël ci tabax ci benn salle de classe fii tabax ci benn poste de santé fële ci loolu ngay dëkk pendant ba sa jeex. Mhm. nga bëgg encore nekkaat fa encore ci. te tey collectivité territoriale yi dafa laaj nit ay nit yoo xam ne am nañ dimension. Mhm. xam nañu lan mooy euh, euh, décentralisation. Mhm. yan possibilité la lay offrir. lan nga ci mën a def ak galon bi nga yore parce que galon boobu moom moo moom mooy galon bi gën a am importance. soo ko yoree. Euh, di nga mën def lu bari mais su fekkee yoruloo ko loolu moo tax ñu ut pal man bokk en ce qui me concerne parce que xam naa ne pal googu su ma ko amee mun naa yëkkati Tataguine yóbbu ko en trois ans je mets les compteurs au vert mm-hmm. Tataguine parce que dama ko def de fond en mm-hmm. dama ñëw dégg nekk immigré ñëw ut tool di béy mm-hmm. ba ma fa jógee ba bi may ñib si bàyyi leen fa ñëw jël tool di ko béy bi ma ñëwaatee j'ai boobu sax ay test laa doon def rek dama daan def euh, quinze à vingt tonnes ci soble bi biir Tataguine tamaate bi dama daan am tamaate de août jusqu'à euh, jusqu'en février ou janvier ou février mhm. di jaay Kaolack ak Mbour donc yooyu yëpp ay exemple la yoo xamante bi ne ay exemple yu ma fa joxe la sans compter nag euh, organisation sociale bi nga xamante bi ne taxaw na tey ñu war ci mën a basé wu sukkandiku ci pour gi mën a jóg jot te donne un exemple pourquoi man ma bëggoon ñu yaatal tuuti waxtaan wi mooy euh, euh, foofu je lance un appel à aux hommes politiques du Sénégal. Hmm. parce que euh, manquement yi am tey au plan politique lu ci bëri mu ngi commencé ci nga nekk chef de parti ñu fal la nga falu dem dem toog ba pare le parti qui t'a amené au pouvoir ce parti là doo ko structuré. loolu c'est le mal de tous les hommes politiques sénégalais te boo xoolee euh, à part le parti socialiste mhm. yeneen parti yëpp yi nga xamante bi ne dañu falu dañu dañu structuré wu dañu créé wu du moins mhm. te defuñu seen structuration complète ba mu yegg mhm. parti yooyu amuñu avenir mais est-ce ul nekkul mel noonu président Macky Sall moo taxaw wax ne gars ko kañ ngay structuré sa parti bi mais boo léegi bëri nangul structuré parti bi est-ce nekkul dafa xam ne c'est un parti qui n'a pas d'avenir non non man li may considéré tous les partis ont été structurés foofu benn nit moo fa nekk di penser pour tout le monde c'est le c'est le kii ah, la. non non non non non mais c'est vrai <laughs> euh, boo demee AFP aussi c'est pareil benn nit moo fa nekk di nekk la tête à penser muy musa Niasse. nga dem euh, réew mi c'est pareil c'est Idrissa Seck ça c'est le mal des hommes des des, des hommes politiques sénégalais dafa am yoo xamante bi ne loolu euh, dootul nekk question d'intérêt mhm. personnel mais intérêt national lay nekk euh, structurer un parti politique c'est aider à l'organisation sociale de de la société dans laquelle tu vis mhm. parce que à force que les gens organise des élections démocratiquement à la base. Mhm. bu ñu am culture boobu dafay permettre à ce que les gens mun a am cette notion démocratique. d'accord ba pare nag léegi nag nga mu soog ñu soog a mën a dem nag ci parce que euh, bu ñu demee ba ñu définir euh, toutes toutes les fonctions yi nga xam ne moom moo nekk dans un parti politique organe bu nekk ñu teg fa nit élection moo ko fa teg. Mm. bu waxtu ba jotee ñu demaat aux élections bu bu bu liggéey ñu bàyyi ko fa bu liggéey ñu jëlee ko fa mais loolu bu amoon bu commencé woon am au Sénégal. mais kon problème yi ñu gis ne kon pour dootu dootu fi am parce que nit ñi lu boo gisee lu bëri ñu koy def eh, euh, maa tey jeeg euh, manque de civisme beeg yooyu yëpp boo gisee muy am c'est parce que amul culture amuñu culture boobu culture boo xam ne danañu yóbbu ci ñu xam ne euh, y'a un mieux-être lii ñuy dund nii gënul lee moo gën mm-hmm. lo lo lee moo gën donc c'est pour dire que euh, la structuration des partis politiques elle est très importante. te loolu leen mën a manque structuration boobu. mais manque structuration bi li muy andi euh, do do ya manque de démocratie do amoo y' pas de débat y' a y' a rien les gens ne donnent dañ ko war di dañu war di ko jox suñu suñu suñu suñu suñu mu jël avis yoo xam te bi ne c'est des avis des avis yoo xam ne ñun duñ ci d'accord mais dañ ci mais ak moom mm-hmm. mais na fekk mu am un débat mu am un débat contradictoire d' accord voilà. ndax loolu bokk na ci ci affaire choix wu candidat parce que yow bu ngeen mooy boo demee ba ci élection yi ñu ne leen kii lañ mais yow sa sa sa waa waa taati gi mais leen bëgg a jàppale bu boobaa ban taxawaay ngay mën dara am ndax da ngay def comme comme. génn nekk indépendant da ngay indépendant. wala boog da ngay da tënku ci président Macky Sall même fekkee sa askan nee nañ yow lañ tàmm. waaw man man je crois à la hiérarchie je euh, te aussi nit ki mënoo ko fal ba pare di ko fàkkatal. Euh, président Macky Sall am na ci question yoo xamante bi ne suñu jàkkaarloon man ak moom dinaa ko wax ne ko lii d' accord naa ci lii d' accord naa ci waaye lii d' ma ci lii d' ma ci suñu jàkkaarloon man ak moom. Mm. je vais le lui dire. Euh, mais cela n' comme loolu peut être amul euh, dafa ma man en tant que militant de l'APR. Mm-hmm. dafa am. code boo xamante bi ne. Mhm. code boobu man dama ci war a tenir dama ci war a euh, adapté wu te code boobu du dara lu dul euh, quand la hiérarchie euh, est organisée comme il est organisé parti bi structuré wuñu ko. Mhm. benn responsable moom mooy jël les décisions di wàcce document yi par ay lettres circulaires ñi ñi di ko appliquer di ko topp mais je suis tenu de le faire. su fekkee du ma ci ànd dama war a démissionner dem defi leneen. Mhm. dem ci beneen parti. Mhm. mais tant que mu ngi doxee ni mu koy doxee te maa ko fa tegoon maa ko wóolu ba teg ko foofu euh, je le soutiendrai dinaa ànd ak moom ci loolu même bu fekkente ne dafay dem à l'encontre de mon de mon intérêt parce que encore une fois de plus. Mhm. Euh, euh, falu bi ce n'est pas une fin en soi. parce que euh, voilà maa ngi dem di ñëw. maa ngi sant yàlla. voilà après nag li ma bëgg a wax rek mooy. Euh, euh, APR ñun ñetti responsable yi nekk au niveau de la l'APR. Mhm. soo gis justement soo gisee tey euh, Ibou Ndiaye ak ak Déthié gën a fas gën a fës c'est parce que kii mooy maire depuis 2014 moo nekk maire. Mhm. kii nouvellement il y a quelques mois yóbbu nañu ko conseil au conseil des collectivités territoriales. il a il a un mais man depuis 2012 ba tey. sama moyen bopp laay demee ci parti bi moom laay defee samay tournée. Mhm. donc est samay action mun na. yow bi foofu. man maay le troisième est est samay moyen mun na toll ak seen i moyen non mhm. tollewul. léegi jotul ko fi mu nekk nii ñenn ñi propose ñu ne pour Macky Sall régler problème de responsable ci affaire locale yi qu'on euh, crée ñu organiser des des primaires d' abord. pour ñu ñi xamante ni ce sont ce sont des des des candidats bokk même parti nekk ci même lieu ku gagné kooku mooy représenté ki est ce fi nekk nii kon ngeen proposé président Macky Sall pour mu régler problème bi définitivement parce que mënul nekk benn commune bu nekk ku nekk dem maa mën. Mhm. Euh, kii kii may ma ma e masque fële kii may feetaani biir kii may feetaani lépp ku nekk taxaw ne ma ma ma ma ma euh, am doole te même personne lañu lay dem leen may xaas est jotul fi nekk nii ñu def primaire ci élection yi jëm ku gagné. primaire yooyu yow yaay nekk le seul candidat bi nga xam ne représenté euh, la parti euh, doon doon na bokk ci proposition yi ma doon proposé bu fekkoonte ne amoon amoon naa audience ak moom. ndax bind nga ko genre lettre. non je l'ai pas fait euh, mais doon na bokk ci proposition yi may def parce que su fekkente ne dañu fixe la caution aussi élevée que ni que fi ñu ko fixé. Mm-hmm. mu ñu ñu gis ne au niveau des collectivité territoriales. Euh, les maires qui ont eu à être élus en général euh, ñu am na si ñoo xam ne du par du par popularité lañ leen fale mais par xeex yi am ci biir euh, les différentes composantes mooy maanaam opposition bi coalition yi am mhm. en général nit dana am doole ëpp doole fenn mu am nu mu demee dans une élection ñu gagné ko mhm. te fekk ne moom moo popularité dans dans dans une commune mhm. donc maintenant Euh, vu que loolu c'est une réalité boo xam ne ñoom xam nañu ko la hiérarchie xam nañu ko mhm. mais je pense que doon na baax ñu organiser ay primaires lu temps bi xat xat xat xat au moins doon na rétablir l'équilibre doon na andiwaat équilibre bi parce que ñi nga xamante bi ne euh, amuñu caution te ñi wóoru nañ leen mais ñooñu ñooñu lay fal. Mm-hmm. ñooñu ñooñu ñooy ñooñu ñooy nekk lu ñoom ñooñu nekk seen ay tête de listam mm-hmm. mais su fekkente ne dañu tëb a tëb rek décision bi jóge ci kaw ñëw euh, même bu daanoo ci même même bu daanoo ci man keneen mën na contester ne euh, waruloon nekk moom parce que gënuma populaire. comme comme ni nga wax donc. Euh, mais tey tu dellusiwaat rek ci question bi ndax jàppoo ni est-ce que question bi waroon nañ ko yemale. candidat yi nekk ci parti yi ak indépendant yi nga foog ne caution bi tey du gën a diis ci indépendant yi par exemple bu ñu fixé woon benn quinze millions pour ñu nekk ci parti yi indépendant yi ñu wàññi leen ce que jàpp nga ni caution bi waroon na bañ a mën a yem euh, pour ñu nekk ci parti yi ak indépendant yi pour may chance ñëpp daal. waaw mais mais mais je pense que foofu. Euh, parce que boo xoolee am na yenn dëkk yoo xam ne boo demee élection locale ñëpp am nañ droit caution amul dara amul. Mhm. waaw c'est que fii Sénégal li problème mooy. Euh, pléthorique ku parti politique yi fi am euh, moom moo tax te aussi boo xoolee euh, suñu composition paysage politique bi ni mu ni mu demee APR du parti bu ñu structuré boo xoolee boo demee ci benn collectivité territoriale bu ci nekk bu ci nekk. Mhm. am na trois wala quatre tendances yu fa nekk dans le Sénégal loolu ça fait combien de candidats. ça fait des milliers de candidats. Mm -hmm. donc ce qui ce qui fait que euh, sans compter maintenant ñi nga xam ne ñu ngi ci euh, à côté indépendants yi. Mhm. donc je pense que d'une certaine manière euh, andi caution bi ci benn niveau bi euh, je sais que ça règle le problème d'un côté parce que dana permettre que li amoon en 2014 bi passé. Euh, élection bi passé en 2014 élection locale bi li amoon bañ a bañatee amaat loolu je pense que moom moo tax peut-être. Euh, ñu ñu ñu mais la fixation de ces de ces de ces caution est ce que nekkul danger pour le Sénégal parce que mënuñu woon la ñu fixé mbir mi à quinze millions euh, ñenn ñi nga ne nañ amuñu mais bëgg nañ. Mhm. Euh, te ñuy naan par saa yi am na ñoo xamante ni day am ay financement extérieur yu ñëw xamuñu xaalis jógee mhm. est ce que nekkul day gën a simpli simpli def simplifier li nga xam moom mooy ñenn ñi nga xamante ne seen financement day jógee. fu fu sori. Mhm. nit juróom wala benn euh, des des francs xaalis ñooñu aussi bu ñu paree dina am leen loo xamante ne ñooñu dinañ ko jox à si nga moom mooy ñëwaat donc parce que euh, dañoon bañ yenn yi euh, comme ni ko def bañoon ci présidentielle bi ne am na ñoo xamante seen financement mm-hmm. wul jóge ci extérieur mais ki nga xamante moom euh, indépendant la bëgg na nekk li nga xam mooy candidat ñu fixé quinze mm-hmm. am ku nekk Europe wala ba ko xamante ay forces yu nekk ne ko mën nañ laa jox xaalis nga dem déposer ji doo est-ce que nekk ni day ubbil buntu ñooñu nga xamante ne ñoo nekk ci biti euh, bëgg a dugal seen loxo ci ci réew wala bëgg blanchir xaalis am am ñu ko jaare waaw fo foofu euh, foofu man li may wax rek mooy euh, dañu war a continuer réforme yi mm-hmm. il faut réformer le système politique du Sénégal et à fond il trop de partis politiques parce que boo gisee problème yi da am na yëpp c'est parce que à tout va ku jóg rek teg un document dama bëgg créer parti mm-hmm. ñu jox la récépissé mm-hmm. foofu la problème Hmm. yan critère la ñu war a teg. am na ñuy loué récépissé sax. am na sax ñoo xam dañuy loué sax récépissé pour ñoo nekk candidat à une hmm. élection. Hmm. donc man pour man li ñu war a njëkk a def mooy ñu réformer le système. set am na ñu ko fi proposé am na ñu ne nañu ñëwaat ci système de pensée yi mais tey adduna bi wala si si loolu c'est le c'est du libéralisme à outrance. voilà yeneen kii presque dee nañu. Euh, mais je pense que mën nañu continuer réfléchir pour man pour que réformes yi ñu mun na ko apporter parce que euh, même même au niveau gouvernemental c'est pareil. Mm-hmm. c'est les réformes qui font que ñu mun a am une certaine stabilité sociale économique culturelle réforme yooyu dafa war a am. Mm-hmm. alors maintenant quant à. Mm-hmm. ñi nga xamante bi ne dañuy mën nañu am question bu jógee ci. Euh, une puissance wala quelque part que des des une, euh, un financement extérieur. Mm je dirais tout simplement que je fais confiance et je fais confiance encore à, à au, au mm-hmm. parce que fii fii suñu réew mi. force restera toujours à la loi. Mm-hmm. man loolu une dernière question ndax ah. dañu nar a match bi en direct yow APR nga bokk tey. seen maire bi ki fa toog ci Diouf APR la bokk itam. te mu mel ni rek askan wa àndatuñu bokkatuñu gis-gis ak maire bi nga xam ne moo fa toog. te hmm. ngeen bokk parti bi. Hmm. est-ce que jàpp nga ni am ngeen chance tey euh, gañewaat local yi. am nañu am nañu chance gagné yi parce que euh, ñun euh, trois responsables yooyu. Hmm. ku ci nekk am na loo téye. ah mais tendance paraît-il Pastef la léegi ak euh, Ibou Ndiaye. non non non euh, Pastef <laughs> Pastef. Euh, ñoo fay bomb temps yi. non non surtout waa Pastef. waaw waa ñu ngi ñu ngi yëngatu. ñoom ñu ngi yëngatu maa ngi koy nuyu sama jarbaat mhm. sama jarbaat la. mais mais suñu zone bële. Mhm. foofu APR moo ko moom. Mhm. Ah, ko moom. Ah? moo ko moom. te moo koy moom. Euh, ah, ah population waxul loolu. non affaire ko moom ça c'est mm. sûr. waaw ça c'est sûr ça c'est sûr muy man muy Ibou muy muy Dëcce kuñ fa mm. teg affaire moo ko moom. Ah, après mm-hmm. après li li problème bi mooy effectivement euh, on a besoin que commune bi décolle te commune bi. fi mu nekk tey ci loxo maire bi mu nekk. Mm. Eh, on aura du mal à que commune bi décoller. Mm. ça aussi il faut le reconnaître. Mm. Ah, mais mbaa dina yoom dina yoom parce am na am na bloc bu ma bu am na bloc mag bu ñëw parce que am na ñuy ragal naan euh, li Macky Sall li tiit fan yi moom mooy euh, coalition bi nar a am ci diggante PDS. Pastef ak euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, euh, Bougane moom fekkee si na aussi affaire bi mooy ñeenti ñi nga xamante ne ji ñoom ñoom ñoo te nelaw Macky Sall hmm. donc ñooñu est nekkul fi mu nekk nii bu ñu ñëwee foofu duñu duñu du ñu xaw a jengal tuuti seen seen seen seen trio boobu nga xamante ne moom ngeen nekk jamono ji non c'est fële li tax mu lu tax ma ne la foofu benn du sama du ma sax APR mais benn bokk yaakaar moo ko moo ko moo ko moom hmm. parce que boo xoolee président Issa Sall mu ngi Tataguine te euh, euh, président président Issa ñëw na fekk si le président Macky Sall. pour ànd ak moom liggéey. mais moom mais moom amul base politique moom ci li ñuy wax. Oh, amul base politique politique euh, ay moyens moo koy def. boo boo amee <laughs> waaw d' accord je suis pas là pour le défendre mais politique moom en général soo amee tuuti moyen rek. mën ngaa def mën te quand depuis un certain moment. Mm-hmm. quand même nga mu ngi di fa def lu lu baax. Mm-hmm. alors donc su fekkente ne moom dafa nekk. Euh, monsieur le maire nekk fa man ma nekk fa ibu Ndiaye nekk fa Euh, c' il va être difficile que mu am bloc bu mun constitué mhm. ba mun a ñëw euh, gagné benn bokk yaakaar boobu. Mhm. Mhm. ndax commencé nga def ay liggéey ci wàllu primo votant parce que am na coow mag ci wàllu délivrance certificat scolaire euh, certificat résidence yi ndax amul seen foofu parce que fi mu nekk nii moom yëmbal ñu ngi ci wax. fenn fenn ñu ngi ci wax transfert directeur yi ku ci nekk yaa ngi def def say a xëcc ay nit mooy. bëri na la bëri ndax yéen foofu amoo coow délivrance li nga xamante ni war a rendre non non ñun ñun amuñu coow boobu te coow bi coow bi coow bi. Mhm. moi je pense que opposition ñoom ñooy euh, ils mettent un peu de de de au feu. Mhm. man suuf suma suma suma suma c'est à mon à mon avis. Mhm. les élections les gens dañu war a serein a ñu dem ci tranquillement tu vois ku war a toog toog ñi ñu gagné. ñoo fekk si ñi nga xam ñoo gagné ñu ànd liggéey. Mm-hmm. kon maa ngi leen di maa ngi leen di maa bu baax. Euh, di kontaan ci invitation bi. Mhm. Sylvie maa ngi lay remercier di remercier monsieur Fall. Mhm. Euh, di leen ñaanal yàlla yàlla jàppale la seen liggéey bu baax. Mhm. di ñaanal Sénégal euh, réew mi yàlla yu def fi stabilité. alors fi ma bëggoon jeexale rek mooy toujours loolu appel la boo xam ne man moom. sama samay responsable laa koy lancé. Tataguine. APR man maa fa nekk tey ki nekk responsable yi bi nga xamante bi ne. daray APR ñëwul ci man daray APR. comme indépendant mais yaa ngi ci biir. maa que doo génn tamit. déedéet bàyyi ah, bàyyi ma ci biir rek. <laughs> baax na euh, euh, ci <laughs> engagement mu am parce que loolu loolu soxla euh, une boo xamante ni personne développement li nga xamante mhm. nii mooy wàllu politique bi bu jëree ñu ay primaire koo xamante ni du mën nañ la ñu aj la deux ans xamante ne doo déposé waat na xam sa bopp waaw donc voilà merci El Hadj Mansour Sène di responsable politique ci euh, commune bu Tataguine di mba euh, di gërëm auditeurs et auditrices Rewmi FM Adama Diallo mi féete ci cabine technique bi